sant yàlla bu baax boo seetloo ci diggante màggal gi ak gàmmu gi dafa mel ni ñi lekk ci nguur gi dañoo bëggoon fitna am maanaam ay attentat ñaata at Sénégal mi ngi màggal mi ngi gàmmu ñaata at kenn musta lu mel noonu kenn musukoo koo njort sénégalais gëm-gëm ak pas-pas la am kenn musu koo gëm kenn musu koo gis lan la gis màggal nañ bam ba màggal gu neex luñ fa gis dara foyer religieux yépp gàmmu nañ dara amu fa kon il faut ñu bàyyi di jéem a tiital nit ñi di dugal seen bopp oui Sénégal oui jël nañ matuwaay yëpp xaw fi dara du fexew parce que Sénégal amul terroriste Sénégal amul ay force obscure Sénégal amul kenn ku bëgg a dal ci këru diine yi amul c'est pas vrai ñun ñoo leen gën a gëm islam confrérie parce que dañ ko fi fekk ku nekk am nga fooy yaakaar am nga fooy dem fii tooguñu fi woon fii dañu gëmloo ne way banlieue bi à cause li nga xam ne moo di wàllu pauvreté bi dafa am ay réseaux terroristes yu tapis dans l'ombre ils n'attendent que le moment fenni kese fenni kese fenni kese bañ koy wax ñaata at ba tey jii dañ ñaanal suñu bopp jàmm gis nañ réew yu terroriste am nu mel xam naa loolu sax moo tax Sénégal Coupe d'Afrique des Nations deux mille vingt sept sax gañewuñ ko parce que yor suñu làmmiñ diw ko mu mel ni laalo terrorisme terrorisme terrorisme rek te musuñu am attaque benn terroriste xam nga terroriste pour mu ñëw ci ñu ndax sénégalais yi sénégalais yi fii ñëpp a jàng alxuraan jàngewuñ ko ci ay internet jàng ko xam ko munoo leen manipuler am na benn politicien sax bu doon wax ne oui ils envisagent d'attaquer les mausolées de Cheikh Ahmadou Bamba euh, les mausolées de non quand même ba léegi loo fi gis dara nañ ñaanal suñu bopp jàmm te jàmm la ñuy am jàmm la ñuy am ah Sénégal lii discours yi ñu fi indi ah ñoo ko tax a du xamu ko. kenn musu ko fee gis kenn ko fee kenn musu ta yooyu terme yi ñuy utiliser yëpp seeni terme la force occulte force obscure euh, commando rebelle ah, ak lanati sax du xam yooyu mais nan ñaanal xam nga gàng nit da ngay gàng lu baax ñaan lu baax kawo bi ñu bëgg pour am porox ndoll pour ne comme dans ces conditions là nañu reporter élection yi kawo boobu kenn du leen ko may kenn du leen ko may sénégalais yi yéen laay wax ak li laay war a suuli nee leen pat ni ngeen ko defee ci élection législative yi pat ngeen def maye ñoom xam nañ ne amuñu majorité dañoo lijjanti fii ñëpp a jox cër këru diine yi ñëpp leen jox cër te yàgg naa leen wax ne leen fii réew mi buy tàkk ñi koy taal ay force lañ yoo xam ne ci biir état bi lañ nekk organiser ko planifier ko firnde naa leen ciy jox milice yi kan moo leen jox ay pick-up L200 kan moo am alal jooju ñuy def caravane dugg ci oto 88 kan moo leen jox arme yi opposition wala ay nit ñoo leen jox arme yi milice yi fan lañ doon jóge siège APR ñi leen recruter ñëpp xam nañ leen service de renseignement sénégalais da ngeen takk da ngeen aay xam ngeen bu baax a baax ñu ñi ngeen di déglu amul njariñ xam ngeen ñen ñoo recruter milice yi xam ngeen arme yi fu mu jógee ñun buñ ko xamee yen xam ngeen ne war ngeen weesu koo xam xam ngeen ko bu baax a baax a baax loolu c'était pas une opération des hommes tapis dans dans l'homme qui sont au cœur de la république ñoom rek ñoo fi mën a semer kawo ñoom moo fi mën a sauver kawo parce que gis nañ ay milices lourdement armées di tirer ci ay manifestant force de défense sécurité di leen seetaan nii xanaa bu ñuy nganda ngandaloo ak konkol konkollu ay guerrier guerrierlu ñooñu ngeen war a defanteeg ñooñu ngeen war a waxanteeg màggal nañ gàmm nañ dara amul lépp a jolli neex ba dee xam nga man daa leen ñaan bu leen kenn sikk ci ay wax ju bon ngeen ko yëkkati di ko jëmale ci sëriñ si déedéet sëriñ bu neex nga ne Macky daa baax te normal aussi ku neex nga wax loolu waaye li am ba des te munta dañ ama mooy lan ku mu neex nga wax ko teg Macky Sall ko wutal ko aaya ah wutal ko hadis ah méngale ko képp ku gën ci àddina bi am nga ci droit yow muy waaye askanu Sénégal xam nga lan lañ jàpp ne Macky Sall mi président de la République ci ayam li ci bakkan rot amul benn président bu ayam nu roog moom ñun sénégalais loolu lañu gis comme sëriñ si duñu yëg dara duñ xam dara ñu nit am nañu droit comme nee nañ yëguñu amul problème yëguñu amul benn problème ñu nangul leen ko timit seen ñàkk yëg nangul leen timit ñàkk xam lu xew ci réew mi gis ngeen président bu baax bu yaru ñun de sénégalais xam nga lan lañ gis président boo xam ne ci ayam am na soixante dix morts juróom-ñaar fukki bakkan yu rot seeni famille sëngéem ba tey di jooy xam nga lu tax ba tey ji mënuñoo wax diw moo leen rey ñun de ci ayu Macky Sall ay force de défense sécurité yu tiire ay balles réelles lañu gis ñu sëriñ si baal de mais loolu lañu gis te du dañ ci ayam lu ñu gis ay ndaw yoo xam ne dañoo sonn lool lot xam nga lu tax bu ñu toogee ci réew mi ñu inventé leen ay terroriste lañ tëj leen ci biir kaso bi ba ci lim ñuy toll ci plus de mille deux cents jeunes yuñ tëj ci biir kaso bi ci ayu Macky sëriñ bu ko ci yëgul nag ñun sénégalais ñun loolu lañu yëg xale yooyu buñ leen tëjul ci biir kaso bi buñ leen tëjul ci biir kaso yi na ngay jël looco yi di dem ñun sénégalais yi loolu lañu gis loolu lañu yëg ci ayu Macky ci ayam lañ gis ñoo xam ne ay sàmba booy leen ñu jox leen ay bal pistole ñuy tiire ci kaw ay manifestant bay bakkan di fi rot ñun gis nañ ko fi de man nag dama foogoon ne ci biir lislaam bakkan dafa foor torop comme Macky dafa baax ci ayu Macky sàll lañ gis ñuy wër benn nit gisuñu ko nu yoon jàpp famem yëpp jàpp bébé bu am ñaari at ak bebe bu am fukki at jàpp ba jàpp maam ji ci ayu Macky Sall lañ ko gisee sëriñ si Macky dafa baax de mhm. dafa baax trop ñun de loolu lañu gis ci ayam ci ayam lañu gis ñun lu ñu jaaxal lool mooy ay waay takk der ak ay sàmba booy di tiire ay bal ba ay xale jëli ci laago yoo xam ne ilaa yow mi diini moom lañu ñu fas yéene xaw ma lu mag def waaye am na lu mu def ci ayam kilifa diine yi nag bu leen neexee gisuñu ko ma nangul leen ko waaye ñun tamit ñu am sañ sañ bamtu ne lii yëpp gis nañ ko ci réew mi ñuy fàttali rek ne ci ayu Macky Sall tamit kilifa diine bu la neexee yëguñu ko ci ayu Macky Sall tamit lañu gis ñiy saytu alalu réew mi génne ay rapport tuumaal ay ñoñam muy alal ju baree bare ju ñu luubal alal ju baree baree bari yu ñu luubal mu moroon jariñ askanu Sénégal bu baax a baax a baax a baax a baax xam naa sëriñ si yëguñu ko Macky Sall la jël yépp nee na moo ci teg concom kilifa dina yëguñu ko kilifa diine yëguñu timit na Macky Sall def na réew mi kumba am ndey ak kumba amul ndey ay ñoñom mën nañoo saaga tuumaal wax lu ne ay nit menacer leen de mor kenn du leen laal waaye man mii laa jël exemple ak ñeneen mën naa tëdd di nelaw sama kaw lal mu yónnee moom Macky section de recherche ñu yeema ne ma da def appel à l'insurrection kuy nelaw ci réewum Sénégal xanaa kuy nelaw kay xanaa tal nga leneen lu ak gént xanaa ngay def gént appel à l'insurrection ak ñeneen ñun jàppee ñeneen ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu toog ñu jàpp leen ci ayam lañ gis loolu yëpp ñun yéen de Macky ku baax la de torop xarfa kàlla macha allah léegi nag yooyu yëpp yu Sénégalais yi di dund teewul ñoom yéen gisu leen ko de ñu nangul leen ko gisuleen leen ko Macky moom mën ngeen ko génnal aaya génnal ko addis génnal ko xutbaal ko defal ko let na ku baax la loolu yëpp nag ñu gis ci Macky Sall moo tax yéen béréb yi ngeen nekk maki moo la ko a xam Macky Sall ba mu faloo ba léegi musul gañ a tuuba saa su ne damay dégg sëriñ si di wax lu mu def Touba benn sëriñ benn président musu ko fa def amaana mën na am waaye askan bay yeewoo tuuba ñoom gisuñu seen bopp xaw ma nag fan la ko def mais askan ba yeewoo Touba gis seen bopp ndax élection bu ñëw askan bi duñ ko votel Touba 2012 ba 2023 bi mus koo gañe te damay dégg ñi nit ñi di wax waaw li nga fi def assainissement li nga fi def assainissement te Touba màggal gi mi ngi inondé ba ñëpp di ko jooy li mu def Touba kenn defu ci président de la république ah ah Abdoulaye Wade jaar na fi de Abdoulaye Wade jaar na fi de waaye xawma lan la fa mën a def waaye li ñu seetlu mooy te du dañ mooy askan way yeewoo Touba ki Mbàkkeeg gox yooyu gisuñu ci seen bopp ndax bu ci gisoon seen bopp maki Sall du perte ay élection saa su ne Tiwaawoon gii xaw ma lum fa def mais élection législative yi mujj dañ ko fa gañe élection législative yi mujj dañ ko gañe Tiwaawoon mooy élection yu mujj te élection locale yi bu ko Jóob si gañee ca personne moom la ci personne parce que dafa yàgg a def teraanga Tiwaawoon ma xam ci lu bari moo tax moom mu gañe Tiwaawan Jóob si dañuy fàtte ne élection locale yi bañ jëlee sax bulletin wu xam nga Touba benn bulletin lay am ñu def ci def ci couleuru couleuru Benno Bokk Yaakaar bulletin blanc yi daf ko gañe wóor na ma ne buñ jëftoon Benno Bokk Yaakaar ci couleur bi amaana du euh, duñ voté blanc mais Benno Bokk Yaakaar fas bi lañ gis rek bañ ko te pourtant la <laughs> ñuy wax ne liste sëriñ bi la xama Macky moo la ko gën a xam déggoo ko lu mu wax tuwaawa nee na ñaan yi baax na wante de leen voté <laughs> kon xepp da ñaan xam nga ñaan yi baax na mais de leen voté de leen voté foyer religieux yi ñuy wax yëpp ña fay tagg Macky Sall te toog fa nekk kilifa ci ñoom la yem mais askan ña fay yeewoo ñoom gis ñu seen bopp ci nguurug Macky Sall ba saa su ne bu demee élection ci foyer religieux yëpp dañ koy gañe dañ koy gañe fu muy dëgg gu wér péng xawma lu Macky Sall def waaye daal bu ñëwee mën nañ ko génnal xadis ak yooyu te sénégalais yi léegi dañoo def différence sëriñ bi bu buy wax dañuy déglu yàlla nee na yonent bi nee na sallallahu alayhi lañuy sallam loolu déglu bu ñu paree ci loolu buy wax waxi politique booy duñ ko déglu de duñ ko déglu de duñ ko déglu te nag Sénégal dafa am histoire ndigal su may wax ndigal wax ma murid mais yàgg na fi am sëriñ bu wax ne moo tax su ma déggee ñuy wax se mën a leen billaay xam nga ñoom ñoo ñu jàngal ne yàlla mooy joxe nguur ñoom ñooñu ko jàngal waaw bu nekkee ne yàlla mooy joxe nguur duñ bàyyi yàlla rek mu dogal lu mu yow koo ànd timit nga ñaanal ko rek ci ruq parce que nag kilifa diine goo gis njabootam dafay yaatu yaatu goo xam ne mu bëri ñu baree bari ñu ci far bokk ci opposition bokku ci pouvoir kon ngir mu gën a rafet est-ce que yow mii kilifa diine gi boo faree sax waroo woo ci ruq ki nga faral nga ñaanal ko yàlla am nga ci droit parce que da ngay voter dangay ngay kon waaye fii la ñu fekk nag 2000 waxoon am na ñu fi waxoon na Macky Sall euh, euh, euh, kii day falu Abdou Diouf 2000 première alternance am na ñu ko fi gëñaloon Abdou Diouf fii la ñu fekk Ablaye Wade ñëw falu Ablaye Wade ba muy ñëw taxaw kilifa diine yëpp lan lan nan wax saay saay la ku bëri fitna la baaxul sénégalais yi ñëpp jàpp Ablaye Abdou Diouf muy lem lem xam nga Abdou Diouf moom man mu loos lem lemal yaru noonu ñi ñi téye loxom di gëñ nga day falu 2000 sénégalais ñëw def liñ bëgg a def 2000 fal Abdoulaye Wade biñ dan wax ne nitu fitna la moo tax soo dégloo wayu Paba Cheikh boobu da koy doon wax dañ doon wax nitu fitna la mu ñëw di fay ay Darfour ba xaw lan wayam boobu nitu fitna boobu dañ ko den suñ kilifa dine dañ ko den teg Abdoulaye Wade moo ne Abdoulaye Wade ba mu falew fii 2000 ni mu jaxasoo woon ak kilifa diine yi ni mu leen teralee benn président mosu leen ko terale même bi fi nekk ni teraleewu leen noonu may na leen alal doo xam ne ñoom mosu ñoo xam ne loolu am na ci réew mi am na dégg naa benn kilifa di la boo xam ne Ablaye Wade daf ko mës mës a am moom <laughs> dégg naa mu woon diw na ko see të të të Ablaye Wade mi nit la abu Diouf daal ndekete du dara ndekete alal ji président mën na koo maye. bu ko joxul jox na ko seen doom ay marché ay kilifa dina mu yëkkati ay marché yoo xam ne milliards la jox seeni doom. am na fii ci réew mi Ablaye Wade biñ daan wax nitu fitna la ba mu ñëwee fii kilifa diine yëpp ñoo ko mujj a dar naa leen li ma la wax naa Ablaye dafa dugg ak moom ci ruq xam nga góor gi nag dafa tabe am fu mu moom mu woo benn xaritam bu jege na ko waaw may de président décret mën na kon daal Abdou Diouf ndekete tekkiwul lu dara lii yëpp président mën na koo maye gis nga li ma may man am naa sama benn paa boo xam ne <laughs> dafa seeti woon <laughs> Ablaye Wade fekk dañoo woon xawoon xuloo bu seeti Ablaye Wade <laughs> Ablaye Wade làmbal ko jox ko ko benn xaritam ñëw na ko yow daal yaa bëgg a ñàkk fayda Ablaye Wade bii nga xam ne lu mu la fi yekkul amul kër mu ne ko waaw toog ba benn semaine mu woo xaritam bi yëkkati alal moom it may ko xaritam na ko hee boo xamoon fi nga ma jëlee mu ne ko jàppal nag fi ma la jëlee fu ko gën a sori la ma Ablaye Wade jëlee da <laughs> ko fu ma gën a sori fu gën a sori la ma Ablaye Wade jëlee Ablaye Wade teraanga bu defal na ko kilifa diine yi 2012 taxaw nañ fi Macky Sall mii amutoon buntu bu bari Moustapha Cissé Lo ko doon dugal Touba dugal ci këru sëriñ su bari ngoyoon nañ ci Ablaye Wade du fi jógee xale xam ñu lu ñuy wax fan la mujjee yàlla mooy fale mooy joxe nguur 2012 mag ñëw falu kon lan lañ ci mën a jàpp ci jàngat mooy yàlla mooy joxe nguur gis nga léegi ki ñuy diingat bu falu woon léegi tey jii bu Ousmane Sonko falu woon xam lan nooy def discours bi xale moo yor réew ñun mag ñi suñu at weesu na loolu ngay dégg xale moo yor réew Ousmane mii nu ñu gën a neex ci moom dafa jullite Ousmane mii nit ku baax la dafa yaru jox nañu cër ñun ñii loolu ngay dégg la discours va changer <laughs> le discours va parce que ñoom ñeene duñu ànd ak leneen lu dul nguur ñoom ñoo koy wax waxuma ko man léegi bu yàlla defar Ousmane Sonko dañ ko umpale woon dañ den ñëw ci ñun duñu yàq daram xamuñu ko woon waaye ba ñu joxase moom ah su maam xale xale bu xale xale bu am yar la bu ñu gën a neex bu am diine la waaw bu am diine la loolu ngay dégg des fois damay faral di dégg ñi attaqué jeunes yi waxuma ñuy saaga ak yooyu nag saaga moom ak loo ci mënta defit ku nekk sa gis-gis mais man dama jàpp ne rafet mën nga wax say dëgg te doo ci saaga xam nga ndaw ñi soo xoolee génération Sénégal dañu am pas-pas ak gëm-gëm xoolal ci TikTok yi xoolal ci statut yi xale yi dañuy tiitaroo màggal yi dañuy tiitaroo gàmmu ji dañuy tiitaroo seen sëriñ loolu sax la ci Sénégal waaye dañoo seetlu timit ak li ñuy daj yëpp ak li leen Macky Sall di woon lépp dañoo gisul seen benn sëriñ bu leen àddul wala bu araftu wala bu wax mais grève universitaire am na fi maam Abdou Aziz Sy Dabakh ñëw toog réglé ko grève enseignant am na fi syndicat mam Abdou Aziz Sy Dabakh ñëw toog réglé ko te nag taalibe li ñuy daj ci sëriñ si sëriñ si xanaa xamoo ne lépp lu leen nguur defal génne ko wax ko te taalibe danga koy gis mu yor malet daw si ñëw ba ci buntu kër gi maletu xaalis toog ñu ne leen sëñ bi dafa fatu ngay jooy parce que yow yaa bëgg jël alal jooju jox ko ko te sàkkuwoo ci moom lu dul tàllal sa ñaari loxo mu ñaanal la nga def loolu ngay sàkku ci moom rek na du leneen loo sàkku ci moom kon kale bu ñu demee ba am yaakaar ne fi mu nekk nii dañ leen abandone dañ leen abandonné ñu leen di tëj di leen rey gisuñu kenn ku ci àddu waaw foog nga ne mën nañ rey senegal luñ fi tuur ci bakkan yëpp ba ay deret luñ fi tuur ci deret yëpp duñ dégg benn nit bu ci wax kenn doo ko ci dégg mu wax kenn xew-xewu diine yi am it da ngay da seppi ah jaaxal na ma torop sax te dañuy wax xale yi dañoo ñàkk teggin dañoo ñàkk yar mais dañoo am désespoir désespoir lañu am désespoir lañ am te nag li gën a doy waar xam lu gën a indi désespoir boobu dañ fiy gis sëriñ mu wax ca wax mu wax Macky Sall loo xam ne man Pape Alé aw ma fit wax ko kon balaa maa ñu jàpp ma tout de suite jii léegi la ñuy yónnee ñu jël si ma aw ma fit wax ko sëriñ wax ko yàq lu mel ni xeme Macky Sall lu ne sëriñ wax ko ñu toog ci tuuti même sëriñ boobu wax le contraire li mu waxoon nga yëg loo xam ne nga wax lu bona bona bona ba tey suba teel wax le contraire la nga daan wax mais sénégalais yi jommi xale yi dina waa lii lan la muy ni jur déception parce que nag royukaay lañ war a doon symbole lañ war a doon royukaay lañ war a doon symbole lañ war a doon ñun ñoo ko nangu parce que ñoo mooñaalee réew mi loolu loolu moom mooy indi yenn ñagas-ñagas yi nga xam ne moom moo am ci diggante kilifa yi ak ñun waaye li ci mën am solo rek mooy baatin nañ leen ko bàyyee wante zaahir bi moom ñun nañu def liñ bëgg a def maanaam ku nekk ci sénégalais nga xool lila doy ci ay nga dem vote fa loolu rekk moo fi des parce que comme moom Macky Sall moom toor fa kàlla macha allah sëriñ ci loolu lañ jàpp sénégal yi tamit am nañu gis-gis wax leneen loolu mooy liberté gis nañ sëriñ Moustapha Sy la mu wax moom it il a toujours à côté du peuple sénégal temps Ablaye wa temps Abdou Diouf xeex na dugg na kaso gis nga mbirum tas tas ay Moustarchidine yi si Abdou Diouf la tàmbale yemoon na ko fi tas ana Moustarchidine tey moo gën a organisé moo mbooloo gën a déterminé wu